laay doomu Mbàkke laay sama xale mbake baa ngi nii mbër bu toll fii waaye ndeysaan bu mu caskee boo duggee Jurbel waa ah, ndeysaan ñu ngi lool waaw waaw ku Mbàkke bawal loo war waa kër giri doomu Mbàkke ñu na teg ah, ah, waaye yow lamb ji loo ma ciy wax tey ñoom la ñuy xaar leen combat bi dina pa benn paradance waaw ndeysaan laa ilaaha illallah waaw waaw ña ngay waxante doomu Mbàkke nee na ko nee naa la jàkk buubu cas gi ne ko xalaa ma niir baa jox xalaa xalaa doo fi jaar doomu Mbàkke ne ko li nga jot fa jaar ñaar kenn ku si nekk yaa ngi def say tic tac de sa mbokk yi ngi moo leen tàqal diggante doomu Mbacke ak Boubou Thiaski arbitre baa ngi ci digg bis arbitre baa ngay waaj a seex soufflé ga nga leen di wax nee na leen soufflé leen boole te soufflé leen di ñàkkale ba dem rek lay gis ba yooyu supporter dem yoonam mbokk yi lamba ngi te lamb jamono ji seen waa kër toog duñu taxaw say mbokk duñ toog duñ taxaw arbitre ba soufflé na diggante doomu Mbacke Boubou Thiaski ak Boubou Thiaski diggante doomu ah, Mbacke Boubou Thiaski ndeysaan doomu Mbacke moo leen féete ginnaaw Boubou Thiaski moo leen féete kanam. Boubou Thiaski mbokk yi ñoom ñaar. doomu Mbacke mi ngi def ay déplacement dox ci kawam. yi doomu mi ngi def ay déplacement. waaye Boubou Thiaski mi ngi ko topp. Boubou Thiaski def na gauche droite. mbokk yi doomu Mbacke Boubou Thiaski. nañ. diggante jàppante nañ ñoom ñaar. jàppante nañ boobu Mbacke Boubou Thiaski mbokk yi jàppante nañ ñoom ñaar. diggante doomu Mbacke ak buubu Thiès gi doomu Mbacke buubu Thiès gi jàppante nañ mbokk yi. ngay bëre baa ngi def tek. ñëpp ak ne géwël yi rek ñooy way waaye géwël yi rek ñooy tëj. la la la doomu Mbacke tey la Samba Yaane Ngaan Njaay laale mooy baaxu góor. jàppante doomu Mbacke moo leen wan buubu Thiès gi. buubu Thiès gi moo leen wan kanam. buubu Thiès doomu Mbacke jàppante nañu. mbokk yi buubu Thiès gi na ko doomu Mbacke dëgër. kenn ku nekk yaa ngi jàpp sa ngembul morom. jàppante waaye doomu Mbacke moo gën a jàpp buubu Thiès gi Boubou Keski ak doomu Mbacke jàppante. loxo càmmoñam jàppul waaye loxo ndeyjoor ba jàpp. waaw ndeysaan. mbokk yi doomu Mbacke. diggante doomu mi ngi jël bopp bi ko ci épaule. Boubou Keski doomu Mbacke Boubou Keski. mbokk yi lamba ngi ñii ñaan a ngi ñaan ñii gët a ngi jàpp ñoom ñaar bëre. doomu Mbacke Boubou mbokk yi lamba ngi. lamba ngi nii. jàppante nañ ñoom ñaar. xamoon naa ne du yomb. non du yomb. newoon naa leen du yomb. ndeysaan ku juum daanu. ay waay lamba ngi waay newoon naa leen du yomb. ndeysaan ndeysaan doomu Mbàkke boobu caske waay. ñoom ñaar ñëpp a ngi des. jàppante di kenn ku nekk yaa ngi jël sa bopp teg ko ci sa épaule mooy parce que Doomu Mbàkke ah. door na Buubu Caski Doomu Mbàkke door na Buubu Caski Doomu Mbàkke door na Buubu Caski Doomu Mbàkke door na Buubu Caski mbokk yi lamba ngi Doomu Mbàkke yóbbu na Buubu Caski Ardo yóbbu nañ ko Ardo Doomu Mbàkke yóbbu na Buubu Caski Ardo Doomu Mbàkke yóbbu na ko Ardo Doomu Mbàkke yóbbu na ko Ardo door na ko ay kurbañ ay yóbbu na ko Ardo dañ doon wax Buubu Caski moo mën xeex waaye tey xeex bi da koo réer waxtaan ah waaw arbitre bi sifflé waaw arbitre sifflé na ci diggante Boubou Thiaski Mbacke kër na mu baax Boubou Thiaski coppe tànk ba te ko ca digg boobu ba arbitre yaa di vingt ngi gisee waaye doomu Mbacke benn loxo ba arbitre bi nee na Boubou Thiaski bi nee na ko Boubou Thiaski damaatal Boubou Thiaski ngi dem di ko topp lamba ngi Boubou Thiaski mi ngi ko doomu Mbàkke bu waaye doomu Mbàkke mi ngi def tekk di ko déglu. ndeysaan ah buubu cas gi door na. buubu cas gi door na. buubu cas gi door na. buubu doomu Mbàkke door na mi ngi door ay kurpañ. ñoom ñaar ñi ngi xeex. ñoom ñaar ñi ngi xeex. ñoom ñaar ñi ngi xeex. ñoom ñaar ñi ngi xeex. làmmante nañ léegi ñoom ñaar. ñoom ñaar ñi ngi xeex xeex nañ xeex bu metti doronte nañ ay rafal Boubou Thiaski tànc na ko mi ngi naan ko bëreel bëreel ñoom ñaar ñi ngi xeex dugalante nañ ay rafal am na lu ñuy waxante ci biir nag waaw kenn ku nekk yaa ngi naan sa morom ñam nga kii naan ko rokkas naa la yee ko xam waaw loolu arbitre xam déet maa koy dégg ah waaw <laughs> ah buur géwél nee na ma koy dégg. maa ngi koy dégg waaw. man de dégguma. ndeysaan làmb ngi mbokk doomu Mbàkke di door. doomu Mbàkke mi ngi door. ndeysaan. buubu cas doomu Mbàkke. combat Njool la Boubou Thiasské ngi dóor ñoom ñaar ñi ngi xeex bëre nañ bëre bu rëy ñoom ñaar ñi ngi xeex ñoom ñaar ñi ngi xeex ñoom ñaar ñi ngi xeex xeex bu rëy waa doomu Mbacke dafa mel dafa bëgg a def ñoom ñaar ñi ngi xeex bu rëy diggante doomu Mbacke ak Boubou Thiasské ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi xeex xeex bu rëy diggante doomu Mbacke ak Boubou Thiasské ñoom ñaar ñi ngi xeex jàppante xeex bu rëy diggante doomu Mbàkke Buubu Cas gi ña ngay bëre bu rëy ñoom ñaar ña ngay bëre bëre bu rëy ñoom ñaar contact nañ leen contact bu am solo ña ngay bëre bëre bu rëy ñoom ñaar ndeysaan contact nañ leen contact bu am solo ñoom ñaar ñi ngi bëre bëre bu rëy ndeysaan Mbàkke ngi door doomu Mbàkke waa Mbàkke dañ koo yabal waaye Buubu Cas waa Cas gi koo yabal doomu Mbàkke daa bëgg a dem doomu Mbàkke dafa bëgg a dem Boubou Thiaski moo nu wan gannaaw. ah ndeysaan ñu ngi leewatoo. ñoom ñaar dem nañ ba ca sommet lang ga ñu càppa. ndeysaan mbokk yi lamba ñii. ndeysaan ñu ngi doorante ñu ngi joxante kurpañ. mbokk yi lamba ñii kurpañ. mbokk yi lamba ñii. mbokk yi baa ngi yëngu. mbokk lamba ñii. Ah. Boubou Thiaski Siteu dugal na gauche droite waaye dalul Doomu Mbacké sóoraale na na kuy mbokk yi lamb ji xeex bi takkar naa sena bëgg a dem mbokk yi xeex bi takkar naa sena Doomu Mbacké dafa bëgg a dem ñoom ñaar xeex bi takkar naa sena seen diggante songoo la bëgg doomu Mbacke jàppante la. doomu Mbacke fi mu toll xeex bi Boubou Thiass gi xeex bee ko arrangé waaye doomu Mbacke jàppante la bëgg. doomu mbake jàppante la bëgg. doomu mbake jàppante la bëgg waaye Boubou Thiass gi xeex bee ko arrangé ndeysaan géwél yi rek ngay dégg ñuy way cey géwél waaye géwél yi rek ngay dégg ñuy tëgg Samba Ndao doomu Mbacke daan na Boubou Thiaski doomu Mbacke daan na Boubou Thiaski